خير الخدم شيخنا بك ورنا دلو سند خير الخديم شيخنا أحمد نفل في العين دلو سند خير خير القديم شيخنا Mbakke war na noo dellu sant xayrul xadime Seyxuna Ahmadoonu fal fil خير القديم قلنا القلبين ورننا دلو سنت خير الخديم لا لا لا أحمد نفل في العين خير الخديم خير الخديم ca baay daam ahmadoonu may la nu tànnoon onu yóbbal nganeel yu taaru ci diine waaw la nu tànnoon onu yóbbal nganeel ci diine baay dam ahmadoonu may nu may la nu tànnoon la nu tànnoon noonu taaru ci diine sunu waaji pusiyat lu gaaya cabaawan wara jokku sanat yàlla tay def yoone nu waaji pusiyat lu gaaya cabaawan cabaawan wara jokku sanat yàlla tay def yoone danu daakaas baray di sotuli yobbal jogo jësa ëpp dàq kër gëmu miine solli yombal tey ku jogo jëf dàq kër gëmu miine ak danu daa dox di xëy di gontu ba dem ndar kay ku jóg war wat ak gaali safiine ba dem ndar ba dem ndar kay ku jóg war wat ak gaali safiine ak la ne woon ndar ñëw Mbàkke leen de fa Njurbel ray ndawal léegi dootu nu bu ne woon ndar ñëw Mbàkke leen de fa bala ay sa bu se ray ndawal ngir li xéewal ku la wam ngi tësantoo tëraloo baay faati ak may moo ne santo terolo baay fati ak may moone ak ille may na sépp gor ci bu farloo sëtu yóbbal la dana defar aw yoone xëy na sépp gor ci bu farloo sëtu yóbbal dana defar aw yoone illa matuloo ki sumya ak yile taa lampin ba ji leen le matuloo kisumi le taabal le taabal ngege naa lampin ba ji leen le matuloo kisumi ak oh. le taabal lampin ba ji leen bala ayca ile daabal. ile daabal. ngege naay daale. lamp mbaa ji leen. ak dari naar yaa ngi toog yaa ngi nu dendal. lay oh. gar gi tay biin biine ma ke toog yaa ngi nu dendal. danu dalal aga bi tay bin bene bakke yaanu nandal ci koppi weer yi nga feeñe yaa di bër naan ko ci koppi weer yi nga feeñe bala ay bër دينا كفيك كاسي أتايا تصندوق منو تقلق نان مونيا كفيك كاسي أتايا بقى أيسا يصندوق منو lembaani ku tonni niw wata sammo waragan say xubbaba ku yel diine lembaani ku tonni niw wata sammo ta sammo waragan si xubbaba ku yel diine nanu kañ Seexu Bamba kuyal diine kuyal diine nanu kañ Seexu Bamba kuyal diine kuyal diine nanu kañ Seexu Bamba kuyal diine ku yal ilay da nanu kañ Seex ku yal di nanu kañ Seex Bamba ku yal di Jamburu makiya Pulangi yanu ko saafal Boole noog saw jigéen ñu óorul xiine yàpp waa ngi yaam ko saafal boole noo sawar jigéen xoolu diine Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi Mbakke jërëjëf Seexu Bamba Ahmad Xawsi dogona kembawa kembala hunu misikine dogona kembawa kembala imisikine dogona kembawa kembala hunu misikine la la la dogona kembawa no imisikine imisikine danu gene jine ginda yanoko doobal ci néeg am ak diine ya nu génne ci néegi ndool ya nu bokkoon am nu doobal ci néeg am ak diine ya nu génne ci réer gi réew mi ci saanoo fam nu taabal ci néegi xam diine

yoon wu mag di aw ba yërëm ndaw ando di magal eh. magam ñu ray ak noone di aw ba yaram ndaw ba yaram ndaw ndaw di magal magal ñu ray daadu dul xibla yaa ngi fiiru fi Tuuba danga nu ko aj siyaare keneen manu ko aj siyaare keneen borom ju mag ji danganu ko aj utum siyaare keneen manu ko aj waaw siyaare keneen maji deggono ko aj tubaale bu ca siyaare keneen siyaare keneen borom ju maji deggono ko aj tubaale bu ca siyaare keneen waaw waaw ba yàddu sunu wirdu yanu doy ci muqaddam yàddu sunu wirdu bala asa yanu doy yàddu sunu ismullahi doy nga nu yéene yàddu sunu ismullahi doy doy nganu yéene dak yaanu xembe ca naari yaanu tere xam yaanu xembe ca naari yaanu tere xam yaanu xembe ca naari yaanu tere xam yaanu xembe ca naari mbakki yaanu tere xam خليل لمني بدأت خوري بداي دك لواجب يا خوري بداي دك لواجب خوري بداي دك لواجب خوري بداي دك xawray bi daay dëkkal waaj budu ko ni yow noo ngi xumbal tey foone paasa budu ko ni yow waa penku duñ jaar nee na waa penku dun jaar dun jaar nene waa penku dun jaar nene kon yow waa penku dun jaar dun jaar nene kon yow waa penku dun jaar nene ko ni yow ak neene soo daanu ak neene bakke di baayu miskin yi yow la mu def yaa nu nampal sa ween a gën ay weene yu miskin yee yow la nu def nday bala ay sabre yaa nu nampal sa ween a gën ay weene yaa di baayu miskin yi yow la nu def nday yaa nu nampal sa ween a gën ay weene yàlla ay sabre si ñu ñu gën yaa di bàyyi miskin yi yow la la def ndey yaa nu nampal sa ween na gën ay ween bala ay sabre si ñu ñu gën se maqaam ak jagle kenn ma du ko yego kenn du ko seene ma sey jagle kenn ma du ko wala ay sabre ma sey yego kenn du ko seene say maqaam ak say jagle kenn ma du ko xam ma say jéego kenn du ko seen say jéego say jéego kenn du ko seen say maqaam say jagle kenn du ko seen ay sabre si jéego kenn du ko seene ngar nga taajul kiraame mat jabara am nga ilmu diraya am nga yaqin ya taajul kiraame mat nga boroma mat nga boroma ilmu diraya am nga yaqin mbàkke mbiri diwaan teewul la ci géew bi lay lay la laa nga fi la ci géew bi ci géew bi yoonadaa daane mbër ya um nga fi diine mbàkke la ci la laa nga fi diine mbàkke mbëri diiwaan te gaale wul la ci géew bi bala ay sa mbëri diiwaan te gaale wul la ci géew bi kiw bi danga tane mbaya ëpp nga fi diine balay sa danga daane mbaya ëpp nga fi diine doo seen morom danga daane mbaya ëpp nga fi diine yow rek a daane nga daane mbal ya nga fi diine danga daane mbal ya nga fi diine danga daane mbal ya nga daane